mën na bouger tant qu'il veut maintenant en tout cas du romb Diaroume du romb pont wu Gambie du génn Sénégal du génn mënul génn fenn mën na des biir Sénégal di wëndëng wëndëng gi ñu fal la maire Ziguinchor yow demoo régler problème waa Ziguinchor ngay wër Sénégal 570 et quelques collectivités nga ne da nga ko fas yéene wër. kañ ngay régler problème non dama lay expliqué. dama la wax non xam laa bëgg expliqué. dama bëgg kañ ngay régler problème waa Ziguinchor. c'est-à-dire sama laaj foofu mooy su fekkee ni dafa annoncé ni day def ab ñemmeeku tour yéen ngeen bañ ko jox publicité ba ca war. non en non en quoi faisant. policier bañ a ñëw naan ko yaa ngi def tubaab y a trouble à l'ordre public la gendarmerie intervient non mais ça on ak l'État parce que bu ñu déggee nii moom motif bu mu avancé mooy que policier ba ñu ñëwee dañ ko xamal ni euh, préfet ci ñoom ci ndigalu préfet la ñu ñëwee donc léegi léegi léegi léegi xam nga moo tax ma la moo tax ma la fonctionnement réew mi il faut ñu jàngal ko xale yi ñu xam ko le préfet lui a notifié moom ci boppam que mook ñi mu àndal ils sont en train de troubler l'ordre public waaw benn est-ce que poser une question ndax Ousmane sook li muy def ni yëpp maanaam ci mbedd mi nangam sàngam xam nga ñaata otol la àndal oto yi très bien benn Ah, Joal Saint-Jean ah, wax na ko nee moom buy def nemmeeku turam du génn moom kese day ànd ak sax ay jinne bu ko neexee mais ma ne la quand il perturbe l'ordre public gendarmerie balaa muy jóg gendarmerie balaa muy jóg préfet da leen wax ni ret il faut rétablir l'ordre public da ngeen bëggoon léegi maintenant ñu bàyyi leen fa ñu nekk di sànni xeer di kase ay oto jàmbur on laisse faire. non man waxumal man ñu lañ bëgg. non loolu moo indi gendarmerie au fait. man fi may mooy c'est-à-dire tout waa benn bokk yaakaar dafa nekk quand y avait nekk dans la victimisation mais ngeen bañ ko Bokk Yaakaar bu fa nekk di sànnante ak ñoom xeer amul ñoom seen bopp ñoom ñoo doon forcé chauffeur clando yeeg yooyu pour ñu wàcc tali bi xajal Ousmane Sonko loolu du perturber l'ordre public ndax Ousmane Sonko nemmeeku tuuram boobu dafa gën borom clando bi génn daw dépense pour déglu këram kooku ëpp njëriñ ci réew mi foofu moom mi ngi fay ay taxes maintenant ba loolu amee préfet day croiser les bras di ko sànn dañu yón dañ ko woo notifier ko ni il est en de perturber le public il refuse la gendarmerie est venue maintenant gaz bi ñuy wax lacrymogène ña doon sànni xeer boo leen dàqee ñu bañ da di gazer il faut disperser la foule pour mais moom il n'a jamais été inquiété le gendarme bi taxaw di wax ak moom sax il lui manque de respect au fait gendarme bi taxaw di ko déglu mu wax li muy wax duggu être dugg dem yoonam bu ko waree defaat feneen gendarmerie day génnaat rétablir l'ordre public Ousmane Sonko moomu réew mi réew mi Sénégal bi ñu nekk ni Ousmane Sonko mooy ki nga xam ni moo fi war a mu mujjee wax te njëkk noppi. allo ah, sax tu tekki wu fi dara lan la fu tekki. non mais grand balak. maanaam sa sagar sax ci réew mi billaahi wallaahi taalaa mbuusu ndox yi ñuy naan di sànni sax ñoo gën Ousmane Sonko parce que ils ont servi nga tamit euh, damay bëgg bu ñuy waxtaan tamit ñuy xaw a jox cër ñi nga xam ñooy seetaan parce que ah, ko xamante ni koo xamante ni tey jii mu ne non mais xaar tam tekki na dara parce que am na am na am na moi je suis pas là pour le mais am na mbooloo bu ne ci ginnaaw sénégalais la tey ji nekk na maire Ziguinchor mine de rien Mamadou Gueye Mamadou Gueye maire Juddé Thiaroye Kaw la xale dama lay wax Mamadou Gueye Mamadou Gueye maire Juddé Thiaroye Kaw la xale bu ndaw la moom moo ma def ñoom moom moo ma nekk doon inspecteur domaine booy bu dàq ko jàng fuuf nag la ak lan maire ak lan ñoo ma ne ak xamaloo ci dolli ak violeur mais tey ji amul leen loo ci dolli. accusation bi nga xamante ni ba tey c'est pas ni moo defoon na dem wuyu ji na dem na dem setal deram ani yoon ani yoon fu mu mujjee loolu. ba tey tontu ko sama ni yéen tout le temps dañu dégg ngeen wu loolu tout temps day revenir ci seen ay kàddu. Hmm. n'est-ce ngeen ni hmm. day manipuler. nit ñi hmm. dafay victimiser wu. moo tax ma ni tout le temps yéen a yéen yéen a koy reproché loolu et pourtant buy def ay manifestations yu ni mel euh, yéen yeen a koy may finalement buzz bi nga xam soxla na ko. non dama ne bu nekkee loolu koy may buzz dina am buzz parce que à tout le temps que mu génn perturber l'ordre public la gendarmerie sera la et va rétablir l'ordre public. naka nga gisee ci loolu ralliement yi parce que gis nañu euh, bi mu demee euh, foofee ci Mbour am na ku mel ni Pape Birama Ndiaye di responsable politique LDR Yeesal euh, moom rejoindre na li nga xamante ni moom mooy parti passé. comme mu mel ni tamit également. kooku ah, mooy kan ah, xamoo ko. am na base de. base ban. Ah, lu mu gagné l' ancien député et vice-président chargé des relations internationales du parti LDR Yeesal. fan donc euh, foofee ca Mbour. waaw moom xam ne Ousmane na ànd ak Ousmane Sonko ak parti bi xam nga ñaata maire ñoo rallié président Macky Sall. bi finalement mu ngi fay parce que mu ngi avancé waale tamit. Euh, ay yeneen collaborateurs a dooleel ci fu mu jëm. ralliement yooyu ngay wax noonu ça ne veut rien dire xamul tax Ah. boo demee à Ziguinchor Doudou Ka a lancé un grand mouvement maa ngi gis ay ñoom yenn gars yi nga xamante ni dafay déposé les armes bokkoon MFDC rallié nañ sax euh, euh, mouvement mouvement Doudou Ka boobu Ziguinchor il a drainé une foule extraordinaire à Ziguinchor moins moins un le plus quatre rek amul loolu mathématiquement la rek. waaw mais bul ni amul sens parce que ku ne xam na ni en politique quand même loo gën a am mbooloo gën a. na fexe ba. gañe na fexe ba gañe bu am base avec quand même ses euh, militants. xam nga kon nga wax turam ku am base am tur ba ma wax Doudou Ka xam nga Sénégal ñi déglu ñëpp xam nañ Doudou Ka. Hmm. ki nga wax noonu à part jabaram ak ay doomam day nit ñi ko xam bariwul. Hmm, non Pape Birama Ndiaye bi ñu bari xam ne xam nga ko arrêté bàyyi ruube nga ko yow laa wax. mu ngi nii ci yi. Mbour bi defe naa Sira Ndiaye laa fa xam honorable député euh, ak ñooñu ñooñu quoi ñooñu daal xam naa leen fa moom. ak ñoom Omar Youm. mais finalement daal xam naa daal côté boobu mbuur ak ay yooyu daal xam naa ne ñoom ak ñoom maître mag euh, nu mu tudd sax monsieur le maire Maguette Sène. mais finalement ñooñu daal xam naa mu demee keroog xaar ma expliqué rek. ba mu demee a mais ndax kon après mu dem beneen dëkk di di gaaruwaale pal mais ndax kon nemmeeku turam finalement nekkul di fay prix lan lay fay est-ce que tamit loolu ci loolu yéen waa benn bokk yaakaar wala leen tàmbali ça dépend ci lan ngay parce que jëmaguñ ci présidentielle moom mi ngi dem mi ngi euh, commencé euh, am ay yeneen nit yu rallié xam nga parti Pastef mi a am doole comme mu ko bëggee woon gën a am base yéen a ngi jaawatle mbee xar bu mbee fekk ren nañ ko ba pare ak mbeewu yëkk bu ñu yeew bokkut Ousmane ko xar mu ñu rendi la ba pare dee na fële depuis bu yàgg yàgg lu mu mën a def mu toll ni moom day yokk coowal prison rek xam na ko léegi nañ ko mel ni Thérèse Faye euh, mu ne euh, dafa bëgg rek. borom jareer mu ne dafa bëgg rek camoufler l'affaire Adji Sarr moo war a. mais looloo ko yëkkati au fait. Ah, da nga partagé avis boobu. dama la jox benn exemple bu ndaw. waaw Pape Alé bu ne xamoon nañ ne dañ ko convoqué donc donc xam nañ dañ ko convoqué xam na ko xam nga ça xam na ni dañ koy convoqué il le sait maintenant en faisant son nemmeeku tour day bëgg buñ koy woo fekk ko mu ngi nekk ci àll bi. di wër ñu war ko war a mën dem buñ ko woowee ñëw dañ koy jëli buñ ko jëli jee maintenant mu amati loolu la siy mais l' état restera état allah et bientôt fin fin octobre début novembre lépp dina leer billaahi laa la wax ma koy wax sénégalais ñu dégg ko ñii dutewu yëpp ci procès Ousmane Sonko bi laa bëgg waxal. Ousmane Sonko sous peu. Mm. il va répondre audition. mais naa la ñëpp di maintenant ces avocats dama lay expliquer ces avocats à chaque fois que loolu am na ils introduisent nañu déglu diw nañu déglu diw nañu déglu diw maintenant le juge Maham Diallo Ousmane Sonko ak ñoom maître Bamba si et consort daan tëju ci néeg daañ déglu Ousmane Sonko buñ ci pare ci biir mois de novembre daañ wooyu Adji Sarr mu ñëw toog ñu woow Ndeye Khady Ndiaye mu ñëw toog ñu wooyu Coulibaly mu ñëw toog ñu woo Aïssata Ba mu ñëw toog ñu woo Ousmane Sonko mu toog le futur nee na bëgg na futur président du Sénégal de teg la teg ay masseuse daanaka presque ñoo xamante ni dañoo jaay seen bopp nday Xadi Njaay lupanaar la yor lupanaar la yor ki ngeen na la wooyee ay futur président du Sénégal teg ko teg koo xam ne 2016 2017 maa ko wax sata laa ko waxee amoon na carte prostitution teg la teg ay ay ay bambin ay ñoom aji Sarr ak Aïssata Ba teg la pour confrontation xam mooy lan mooy yow bi war a nekk président ëllëg dagga santel ak ñii ay menseuse loolu mooy confrontation bu fu jugee nag doon dem procès kooku lu lu mu war a mën tekki ci réew mi moo tax sax ma ne la mbuusu ndox yi ñuy naan di sànni sax ñoo tane Ousmane Sonko parce que ils ont servi à désaltérer quelqu'un. am na beneen actualité. pareeguma non mais rapidement bu dem beneen actualité. waaw pareeguma maa ngi ñëw parce que. gis nga loolu bu jaralee ñoom Abass Fall dama leen wax bu jaralee ñoom Abass Fall. Abass du bandi wuyuwul wuyuwaalewul moom la intéressé réewade bi ñuy jaay nii ci réew ba tax faalewuñ ab général wuñ ab colonel faalewuñ ab lieutenant réewade boobu moo jeex man boog baa jaxate. man man personnellement laa wax wa rabbil kaabatil musharrafa reene boobu jeex na parce que bañu ma ci dara. ci loolu dégg dégg nañ ci sax gis nga nos officiers. yi ñu ci kaw général Moussa Fall. non yow xam nga ne loolu amul. non man de xam nga ni Pape Ali il a menti. non sa Moussa Fall gaañu na. dinaa la yónnee boo paree bu la neexee titre de propriété yi nga xamante ni kër gi moo ko moom mu gaañu ay doomam donn ko ci moom. gis nga nos officiers là général Moussa Fall. général Meïssa Sélé Ndiaye Meïssa Sélé Ndiaye bu aide de camp président Macky Sall liñ def ci réew mi teg ko ci réew mi teg ci réew mi laa wax de ah billahi Ousmane Sonko dina dund ba dee moom ak njabootam duñ ko tekk ci réew mi parce que ñoom dañoo rey ay sénégalais papaam dama ko wax chaque jour il a tué des sénégalais. non li nga xam ne ñii ils ont dama wax. ñii ils ont li may wax nii. xam nga keneen laa ko waxee. dama ne dama ne le père à Ousmane Sonko laa wax de. xam nga man samay wax moom dafa leer en mille cent 1990 bi Abdou Diouf ñëwee Ziguinchor def li nga xamante ni moom mooy campagne bi doon def pour la paix en Casamance déglu baax li may wax dafa dajee papay Ousmane ko ñu dàq ko fee njum mu jugee fa ñibbi Casamance dem yoru dërëm ubbi ubbi restaurant les palmiers mu dajeek problème processus paix boobu Abdou Diouf indi woon bi yaa yaa ba signé woon protocole de Toubacouta ñu doon cinq milliards xaw ma six milliards la am Diouf joxe woon pour ñu financer gars yi pas bi ñëw bëggoon am financement les gens ont refusé mu jël combat bi nag maintenant comme te les gens avaient des pêcheurs mu jël combat bi il a fait assassiner sept nordistes en 1992 ay cubbaloo mais li wax ay ay ba tey ñu gis ñu ay preuve yu nga wax sànq yow yaa yow yaa ñoom dama nañ ma woo ñu laaj leen nañ ma woo génnuñu benn wax man nañ ma woo laa wax xam nga man li ma wax tere laa ko waxee dama ne nañ ma wax ni amaana soo ko waxoon ci kaw ku ni président Macky Sall dinañ la woo non bu ko defoon man dama la wax benn man j'ai le ma def defoon ma wax ko dama ne la man àdduna bii ñu nekk nii gisuma kuy rey benn sénégalais benn sénégalais dundam laa wax de ah moo toog war ko noppee. d'accord je ne fonctionne pas. maa ngi ñëw waaw sa gis-gis maintenant nag léegi yow Ousmane Sonko nga soqee ko ci famille boobu nga xamante ni seen seen da ngeen ko jaay ndax affaire viol daw dem Bessir ñu fat leen jox leen sant Sonko li ma lay wax lu leer la comme midi maanaam seen sant ñoom dañ koo jaay sant ñu sant ñu Sonko. kon nuy sant. loolu ah? dina ñëw. ah déet en tout cas daal en tout cas daal dafa mel ni kuréel lañ santoon boo nee sant ñoon lii kay war nga ma war nga ma war a mën a wax ni yow noo sant yow nii lañ santoon yow noo sant du bari si waaw man ñoom de kuréel lañ santoon kuréel lañ santoon c'est as dama la wax bi du dañ du dañ li ma la wax virgule du ci dañ Bessir Alphan Bessir moo fat maamam fa la seen sant Sonko bàyyee ko moom na wax bu xëy bu xëyfu la maanaam na wax lignée moom na ci lim cinq maamam yoo xam ne Sonko lañ sant na ko wax d'accord maintenant kooku laa wax ni ci réew mi ñu nekk nii ñoom Moussa Fall ak ñoom général Maïssa Sélé Ndiaye nga xam ne ils ont servi le Sénégal partout pour sauver doomu Sénégal ils ont porté les armes au moment où je parle y a des militaires qui en brousse di fanaan ci biir ci ay suuf ci maanaam ñooñu on on ne doit pas du respect koo xamante boo taxawee gendarme lu la neex ngay wax boo taxawee policier lu la neex ngay wax boo taxawee officier lu la neex ngay wax c'est-à-dire que les gens doivent le laisser faire quoi c'est-à-dire di dañ ko a bàyyi Ousmane Sonko ne ci réew mi di wax lu ko neex def lu ko neex il est temps maintenant il est temps de siffler la fin de la récréation mu ngi mooy cette racaille de Ousmane ay ñoom ay ñoom euh, nu mu tudd sax ñoom Abbas Fall yi gis ñuy wëyu wëyulu ci réew mi léegi nga gis seen yaram dafa nam dañoo nam xeex léegi xeex am billahi lazi laa ilaha illa huwa laa la wax nañ génn pour xeex vraiment ndax ndax xeex ndax ndax ñoom ñoom rek a am fit ak um déet